idi idi li nga wax dem lu tax nga wax ko lu tax nga taxaw ci kanamu nit ñëpp toog toog ngay wax wax boo xamante ne gis nga li nga xam ne moom la journée wax di ruuma ndat loo xamante bi bii waruloo ko wax c'est pas normal dem ba léegi nelawuma fan nga teg li nga xam ne moom nga wax yow xam nga li ma bëgg ba noppi ngay taxaw di wax benn façon xanaa da ngaa bëgg kii Wow, kili <laughs> fagi naga def <laughs> mbaye wo nga ci jamu alhamdulillah Wow, man de wax deug fa yalla dama xamne rek li alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko loolu dal moy li nga xamni mo sabab kaddu yi nga xamni yekati nako. dimbalil sab xarit moo xam mu tooñ moo xam ñu tooñ ko yonent bi sallallahu alayhi wa biñ ko waxee ne ko bu dee nag moom ci jëmmi boppam moo tooñ mu ne nga wax ko dëgg ci loolu laa taxaw parce loolu day boo delloo ci saar bi nga xam ni moom lañu naan kullu xaq walaw kaana moral loolu moy li nga xamni mo sabab ma wax la deug gi waye gisuma ni dama ko def ngir mer lola dama dama la nga xamal ne ay kulu xàqam yooyu yep waxuma parce que am lo loo bi yow xam nga sama bëgg-bëgg xam nga ne troisième mandat bi mënul ñak yow lolu lolu xam nga ko parce que il faut éliminer sa gosse yow lolu waxtaan naa ci si ak yow ci birum nek mais waru lo dem ba ci penc bi di def li nga xam ne moom la ñuy tuddee yoole yoole bi si boppam moo rafetul waaw taxaw am noo xamante ne bi noonu nga doxalee ni nga ni nga doxalee nii rafetul jaaduwul waaw parce que tey presse bi yëpp bind nañ ko idrissa Seck cax na Macky Sall idrissa Seck cax na Macky Sall man soxluma sama diggante yow ñuy nekk di caxante ak a def yeneen affaire parce que c' est pas normal jaaduwul jaaduwul yow xam nga li ma bëgg di maa ngi nii li may def Thiès yëpp di kii ba noppi ngay wax li lii jaaduwul waaw prési xam nga nag wax dëgg fa yàlla boo seetee man ci sama jëmmi bopp sax nangul naa la loo xam ni te it bi ma koy wax sama waa parti neexu leen mooy bi ma naan la waxoon naa fi ni sa gis-gis rombul jam ñaajo tey ma nangu ni sa gis-gis weesu na jam ñaajo yu loolu kañ bu ma demee ba avoué ko yëkkati kàddu gi nga xam ni moom lañuy wax kàddu dëkk gi raar lool ngir nit wax la ko ma daadi koy wax danga ko war a jël physique philosophie ma ci wàllu philosophie nga ko war a jëlee ndaxte boo seetee li nga xam ni moom la ñuy tuddee baatu dëgg wal xaq bil nafsi bakkan danga koy war a wax dëgg ndaxte fil dëgg yi bii ni wala dëgg yi baati dëgg-dëgg rek lay doon li ma la wax xam nga ni bokk na ci li nga xam ni mën naa defar sa ëllëg looloo sabab wax ji waaye kañ wax dëgg bul ma ci mere <laughs> man defuma lenn rek ludul wax la la ñi la ñu bari war wax te yeggee wuñu la ko maay ki gën ci yow idi waa parti bi démb ñëpp wax nañ ma ne ma waxoon nañ la ko parce que am na ñu bari ñoo xamante ne bi dañ ma wax ne ma Idriss si di wax ak moom ak di ko wàcc muy wax wóorul donc démb su ma ni lii ngay wax wax dëgg doo jël parole mais nag bett nga ma tu m'as déçu waa parti bi ñëpp mere nañ ma waaw ñëpp mere nañ ma yow mënuma ànd ak yow defal la teraanga gu ne jox la boo xamante ne yow xam nga ni poste bi poste kii la rek xéwal la mais leneen ah sédd la ci mbir yi ngay ngay daan di nuus du dëgg loolu yëpp ma ma jox la ko ba noppi tey ngay ñëw naan da wax dëgg am na loo xamante ne bi tamit bu ñu lekkee ne nit ki dafa la jox suusal waroo boole di lekk di wax lekk di wax dañ koy tere te yaa ngi lekk looy wax booy wax nga wax loo xamante ne bi sax dina neex ki lay jox ngay lekk mais may wax ngay lekk di wax lekk di wax bi di jadul et alors li mën na indi fot lu leer la la mën nga ci fot waaw président xam nga lekk di wax moom man bu dee poste bi it poste la boo xam ni poste kii nga ko jàppee man maa ngi ci liggéey liggéey bu xereñ di ci wane fulaak fayda di ci def lu am solo lo xamante ni wax dëgg fa yàlla yow boo ko tuddee poste politique it <laughs> boo yeboo xam ni xam nga ni poste bi projet yi ma ciy def ak li ma ciy taxawal barina kon man jàppewuma ko loolu man dama jàpp ni dang ma woo ngir ñu ànd liggéey naaw bi mbas mi rombee te it boobu ba nëgëni gis nga li ma liggéey macha allah léegi waa waa léegi léegi léegi lan nga liggéey léegi léegi waa léegi bi ma la falee léegi léegi defal sa bilan waxal ma xam lan nga liggéey léegi léegi loolu laa bëgg nga def sa bilan wala nga fotool ma lépp loo xamante ne bi liggéey nga ak def nga ko bu dee poste bi du poste lekk léegi wax ma yow ana lan nga liggéey ma jox la poste pour ngay lekk war a noppi ngay lekk di wax alors moo wax nga naan am na loo xamante ne liggéey nga am na loo xamante def nga ko léegi wax ma li nga liggéey leer indi wax ma ci lenn. waaw président li liggéey kañ wax dëgg fa yàlla loolu kañ loolu kañ boo seetee boo seetee ci li liggéey boo seetee ci li nga xam ni poste bi bi ma ko joxeeg nëga ni e, li ma ci def muy li gën a fés waaw nga xam ni loolu moom kenn du ko werante ku ko gis xam ni ki ko yoroo nag bi ma ko yoree wuute nañ boo xoole boo xoolee waaw boo xool en tout cas yow yow mi ma koy defal yow leer na la gis nga li nga xam ni moom laay def waaw kon loolu defe naa ni soxlawut ma di la ko yow ci sa jëmmi bopp gis nga ko dama la bëgg a xamal ne la mbir mi ay boo xoolee ak boo gisee ak boo regajoo ak boo jàddee yoon ne mi nekkul loolu ngir mu nekkul loolu oui ay boo xoolee yooyu yëpp nekkul loolu donc yow li nga xamante ne bii moom si si jëmmi bopp moom nga def loolu laa la wax lan nga def donc nag ginnaaw nag yow léegi nee nga da ngay liggéey te nee nga poste du poste boo xamante ne bii euh, du poste lekk mais poste liggéey la léegi dinaa yebal Cour des comptes ak ñu ñëw saytu li nga xam ni moom mooy euh, poste bi ba xam ndax yaa ngi liggéey wala liggéeyoo waaw dinaa yebal Cour des comptes ak OFNAC waaw ak IGE IGF yëpp boo defee ñu ñëw càmbar li nga xam ni moom nga fa liggéey ba bënn nga bu dee du poste bi du poste lekk <laughs> ay président boo gaaw a mer de wallahi wallahi ndeysaan waaw déglu ma ñooñu jarta yabal dégg nga waaw jarta jaruñoo yabal aw poste bi <laughs> ay misalla ngaari lamtoora arwaar bur gede <laughs> machallah mer moom danga ko gaaw a def rek wallaay xam nga waaye mbir mi moom eh, defalal sa xol rek waaw waaw li nga wax sax moom kii na waaw xam nga <laughs> waaw jarta yabal ay of nag ak ay ise ñooñu waaw poste bi moom fa yàlla loolu jaru ko waaw kon waaw jërëjëf <laughs> nañ bàyyi noonu rek <laughs> président teg ci teg ci galaas bàyyil mu sedd dégg nañ bàyyi mu sedd non amul ay nañ bàyyi mu sedd amul nañ bàyyi mu sedd comme que da ngay taxaw léegi di wax ay wax yoo xamante ne nee nga waxu ful la ngay wax loolu il faut ñu lijjanti ko mbir mi du ay nañ bàyyi mu sedd man duma bàyyi dara mu sedd donc dès demain incha allah rabbi je vais dire à l'OFNAC et IGE et Cour contre ñu ñëw càmbar ko comme que yow ne nga poste bi yow du poste lekk mais poste liggéey la léegi nga leeral li nga liggéey alors nga leeral li nga liggéey waaw alors waaw waaw waaw président waaw d'accord waaw xoolal compre waaw waaw jéggulu xam nga rek démb mbooloo mi ak xam nga waa parti bi ñu bari daal di taxaw ne ma faaw nga ci kàddu waxee moom nii xam nga rek waaye yow xam nga ni ma waxee sax loolu du samay wax waaw yow moom wax dëgg li ma njëkk a wax ne la sa gis-gis romb na jam ñaajo boo yeboo nga jàpp ni loolooy samay wax waaw wax fa yàlla waaw di jéggulu ci li xas romb waaw loolu di ci jéggulu waaw nga <laughs> mbirum use ay cour des comptes ak yooyu ak OFNAC jaruñoo wax pour ñu ñëw waaw <laughs> poste bi moom yow mi ko jox xam nga post lu mu waaw bi nga xamante ni bii leeral nga rek loolu day dellu ci wal sutura bii nii bil sutura baati waaw loolu na yam ci sunu diggante waaw jërëjëf waaw dëgg fa yàlla leeral nga te wax nga dëgg yow mooy mën a am jàmmama yow booy bi booy bi nga xam ne mi ngi waaj a ñëw gis nga ko li nga xam ne moom la wax bu ñëwee li nga xam ne moom lay leeral loolu yëpp nga xam ko xam li tax aussi tamit may pousse troisième mois mandaa mandat man xam nga ne du pour man mais pour yéen la du pour man parce que booy bi bu fekkente ni bi ñëpp gis nga ni ko askan bi buggee ak fi ñu ko teg bu may jéem a ba max di jéem a kii man c'est pour vous défendre yéen ba noppi yéen ngeen bëgg jël affaire bi bëgg bëgg ma ko delloo bu dee man ak bu dee da ngeen a bëgg a def lii man kenn du ma kenn du kenn du ma saraxe de bu dee ni kenn du ma saraxe li des ci kii bi yéen ñëpp damay teg affaire yi ci table yi yëf yi leer bu boobaa ñëpp may dugg la defe ne kese maay dugg euh, donc il faut que ngeen delloo si seen xel xam ne bu may def troisième mandat bi c'est pas pour moi mais c'est pour nous pour jéem a sàmm protéger yenn yi booy bi dégg nga ko du politicien te bu ñëwee lépp lay càmbar li ko dalee 1960 mën na nga Moussa Niass wax na ma ko nee na ma xale bi bu mu ñëw bu mu yëg bu yëgee ñu yàqu loolu yëpp wax nañ ma donc il faut que ngeen delloo si waat xale yi xam ne bu may jéem a xëcc nii troisième mandat bi du pour man waaw mais pour borom gémmi ñun niin yëpp aussi tamit c'est pour xoolaat yëf yi c'est ça le problème alors bàyyi caaxaan yooyu